ñëw ànd ak nun jataay bi itam di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi cheikh Mouhamadul Muntaqa xafidahu llahu taala wa raa mi nga xam ne wane na ci sunu jataay bi ak gaaral gi ñuy gaaral téere bi yitte yitte woo goo xam ni kawe na sunu njort ndax dem nañ fa mu bég lool ñaanal nu ci ñaan gu gu dal suñu xel ñu yaakaaroon ne ci lay yem bii ci guddi la ma sëriñ taqaa moom sëriñ Cheikh mun sëriñ Muntaqa woo ne ma sëñ baa ngi nii nee na dafa bëggoon a jàpp ndaw mu ñëw waaye ñoom ñëpp dañoo bokk nekk ca Poroxaan waaye ginnaaw sëriñ Xaadim loo mi ngi fi te ci njabootam la te moo dana koy wuutu ci yu mel noonu daa bëgg mu teewal ko loolu man dama jàpp ni ëpp na ci nun ndax mu xam sunu tur rek daa doy ci nun bu ca dollee nag dinu fàttaliku ba dinu ñaanal ba àgg nag ci yónnee ci lu ñu def loolu moom ëpp na ci nun kawe na sunu njort itam noo ngi koy sant bu baax tey ñaan yàlla mu gën koo dëgëral te gën koo dooleel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 nga xam ne keroog maa ngi wax sañ Cheikh Faat ma ne ko moom daanaka ab ab téere la bind ci bi muy def introduction bi mu bind nii am na yitte ju rëy la ci def lu mat fanweeri xët daanaka loolu yitte la waaye eh, sëñ Mbacke Abdourahman bi nga xam ne moom day sunu kilifa di sunu sëriñ di koo xam ni moom xëy na sax du nu mën a wax lu bari ci moom mi nga wax waxtu wi noo ngi sant ñëpp di sant sëñ Cheikh Gueye mi nga xam ne moom moom lañ ci ñu njëkk a dem lañ ngir xamal ko bis bi ndax diggam ak sëñ Murtada mu sawar ci lool wane ci yitte ju kawe gis nañ léegi wax ju rafet yi nga xam ne moom la fi wax waaye di sant sëñ Modou Gueye ak mboolem kilifa yëpp xëy na ku lim dangay ngay juum al azharu sharif ñoo ngi leen di sant ñoo njëkk a móol téere bi def ci yitte itam ju kawe kawe rawdu riyaahin noonu def nañ ci ay liggéey yu bare bare am na at yoo xam ne dañ ko doon móol di ko jox gan ñi nga xam ne ñoo ñoo ñooy jóge ci bitim réew fu ne réew mi waaye mu assatul wafa bi nga xam ne mën nañu liggéey bépp maa ngi ñoom a ko ànd lool it noo ngi leen di sant bu baax a baax fi may jeexale rek mooy téere bii nii téere bu am solo la boo xam ni man de jariñu naa ci bu baax a baax waaye gëme naa ci it ne lu waay di def na ko def te yàlla rek rek rek tax ndax téere bi réeroon na si Moustapha bi mu fi jógee ku ne xam ne nun boobu noo nga ca daara jey jàng 1989 sëñ Abdou Ñaan sunu maam daana ma nettali ne keroog téere yëpp moo ko doon jëli ca Thiès bi mu demee da koo bëggoon a sax toftale yi ànd mu boole ko waaye chauffeur bi nga xam ne moom lañ ko boole woon mayu ko loolu da doon jël sànni ci biir ci biir camion bi noonu la ko defee mu mer ca nga xam ne chauffeur moom diggam ak moom daa yàqu moom digg diirub seen dund biñ ñëwee Daaru dañ ko jal ci ci benn néeg boo xam ni def na fa fukki at ak juróom-ñaar nu doon nu ko jébbal